Euh, projet bi dañoo defoon phase un si wàllu bind scénario bu ñu paree si boobu noonu si lañ ñëw si phase deux si wàllu production ak euh, montage waaw projet bi daal projet bu baax la parce que Ibara daf ñu permettre ñu nekk Goudomp jàng métier bi bañ a ñëw ba fii nii nekk si yeneen situation ñi jàng foofu noonu am suñu métier mun ko def feneen donc man maa ngi koy remercier si loolu noonu kontaante rek kontaan trop di ñaan sama yeneen morom jigéen yi tamit ñu def comme man walla lu raw lu ma def loolu laa leen di ñaan. waa incha allah pare naa sama film bi te bu soowee yàlla xam naa ñëpp buñ ko seetaanee di ngeen kontaan incha allah. je connaissais pas le Euh, grâce à Ibarek TV moom comme formé jàngal ma euh, nan laay def bu ñu ma ko dénkee nag je me suis dit pourquoi pas parce que j'aime bien être une actrice j'ai aimé et ma ma def ci full ak fayda ma def li ma jangal ma def ko buñ mané reprendre me reprendre parce que je connaissais pas xaw won nan la c'était la première fois may def euh, may def cinéma c'était la première fois écran yi di ma j'ai essayé j'ai fait ah euh, métti woon na trop parce que duggoon naa ci ay faroté. Je euh, euh, daw man pas faro en plus jooyloo nañ ma parce que j'ai pensé à mon père j'ai pleuré naturellement ça m'a marqué aussi et bu ñu donne violé aussi j'ai pensé que c'est c'était